Samb Kunta ca Jaasaan Cheikh Ibrahima Ñas ca Medina Baay maam li maamu ca Yoof Cheikh Omar Fouti Taala Taal ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay mag lan woon fii ci réew mi kenn ku ci nekk ëtt ba nga nekk nga joxante woon loxo ak ka nga bokkaloon jamono kenn ku nekk amante woon jokkonte loxo ak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ca kenn ku ci ne ci ñun boo dàqee ñu ñëpp ñoo bokk meenu maam kon mën na noo wax ne yàlla ci ak baaxam ak sellam yàlla ci ak gam moo def mag ñu tey boo xoolee ñoom ñëpp ñoo bokk mel ni kon Sénégal am loo xam ne kenn fenn amul ci ñëpp gis nañ sous-région bi di fi xew adduna bi di fi xew waaye Sénégal ñoom ñëpp danoo nekkataloo lépp lu mën a ñëw bu ñëwee bu génn kilifa yëkkatee wax lépp sedd guy loolu nag senegal rek ko am ñun nag bi xoolee xam ne ay yàqkat ñi ngi jëg du ruur tool bi fenn fu ne ñu yëkkate ay kàddu yu dëpp wut ak la yàlloo réew mi yàlloo ko rawatina sunu mag ñooñu nga xam ne dañ fi liggéey liñ fi liggéey lépp jox ko yàlla ba mu jeex tàkk ñu war a am laneen lu nu yàlloo ñu am yeneen taxawaay yuñ war a am ñooñu jëpp di yëkkati ay kàddu yu ñagas di ko jëmale ci ñoom ca kenn ku ci ci ñoom tey boo nekkee ab jurit gannaaw yàlla mag ñooñu la ndax ñoo fi samp liñ fi samp ba seeni bàyyi am leen ci ban am ci turu julit bay xëy di jàngi ci réewi naar ya cere réew yi naar yi am nañ ay mag ca ñooñu ña nga war a maal seen i mag ca weddiwuñu seen i mag ñoom ñu dellusiwaat ci réew mi di weddi seen i mag ca seen mag tax ñu nekk ay jullit ñu jàngal ne am yeneen gone yoo xam ne nii ah Basir wax na ko léegi nii lenn lu ne ñu ngi ko yëkkati ay kàddu di ko wax jëmale ko ci internet bi fenn foo jàpp fu ne banqaas bu ne da nga ci gis ñu yëkkati ay kàddu du wax lu noonu. ca moo ne ñi ngi làqatu ci gannaaw ay caméra ay ay ay internet bi te ñoom ci seen jëmmi boppam ñi nekkuñu ci réew mi te kenn ku ne xam na ne réew yan nekk moo ne am na ay magi réew lan moo tee tudd tudd ñu magi réew yooyu ñu nekk waaye ñu wëlbati kuwaat ci seeni réew yi ma ci seeni magi réew yëkkati ay kàddu di di wax lu ne loolu dafa war a jeex ci ñi nga wax état bi mu jël ci ay engagement ndax mag ñooñu mu fi lim ñoom nekkuñu suñu maam ñun kese waaye danoo nekk ay pas-pas nekk ay gëm-gëm pas-pas nag ak gëm-gëm kooku laa la ku ne fu mu egg ak yow yaa ko def ca états de droit la nekk kon toujours ñi ngi yëkkati suñu loxo di wax loolu moo lëkkate moo lëkkale li nga xam ne mooy convergence bi dem nañ ci sëñ Mountakha heure bii daaw mu jox ñu ci ndigal wan ne loolu ñuy def moom lañ koy defal ñu dem ci sëñ Babacar si Mansour mu wax ne loolu ñuy def moom lañ koy defal mi ngi ci biir ñu dem ci sëñ Assane Seck mu wax ne loolu ñu nekk moom lañ koy defal ñu dem yoof même soos dem Medina bàyyi même chose dem ci ki nga xam ne mooy waa Medina Gonaas même chose ca dëgg-dëgg kon convergence am na fu mu teg tànkam ñuy wax ne. ñi ne ci réew mi di tuddee yeneen i kuréel di wax ne am na lu ne ci seeni gannaaw ñu koy mbubboo ay sàmm jikko ak leneen te ñun bi nga ko jàngatee ba jàngat ko ba xool ko xam na ne kenn ku ne ci ñun sëriñ si boo indee boo waxee lu jëm ci ñaari tur man maay njëkk si signé ku ne mooy signé parce que lislaam nangu ko beneen diine nangu ko. wante biñ jàngatee ba xool xam ne dafa am yeneen yu ci lëkkatu ci imaam mii duma bàyyi xam na li ma bëgg a wax yàlla rek waxut rek ñaari tur yi bari na lu wax kon lan moo tax ñu jël ñaari tur yi jëf jëf ko armo di xeex nanguñu ko lislaam nanguñu ko dañ koy xeex ñu ñëpp wante am leneen lu laxasu ci gannaaw lu ñuy wax politique loolu nag moo teeloo xel yi te nan xam ne it leneen da cee laxasu tey am na ci kenn koo xam ne yoon teg na ko loxo te ñëpp jàpp xam na ne fan yii jàll yëkkati ne kàddu yu ñagas jëmale ko ci murid mm-hmm. ba tey jii mu nekk fa mu nekk di déglu ay xasaayit murid ñu koy wooyee murid muy wuyu murid kon nga xam ne Seex Ahmadu Bamba kenn mag ñooñu duñ kenn ñu leeral na nag ñooñu di ko wuyoo kon am na ci ñenn ñoo xam ne tey sunu waajuru suñuy kilifa yi leen signal nan xam ne ñii kat am na ci ñoo xam ne ñi ngi ci kuréel googu ñoo xam ne seen pexe bu joyee kenn duutu siyaare suñu borom bi maam yi kon loolu leeral tuuti laa ciy def man woon naa ko leeral xam ne nan ci bàyyi xel